baal ma àq waay baal naa la àq yàlla na nu yàlla boole jéggal ñu fekk ko ay déwéni déwén yàlla na la ci yàlla jéggal sa bàkkaar njëkk yi ak sa bàkkaar yu mujj yi yi nga xam ak yi nga xamut yi nga tey ak yi nga teyut yu ndaw yi ak yu mag yi yi nga yëg ak yi nga yëgul yu feeñ ak yu nëbbu yàlla làq la fa yàq eggul aar la aar njaboot gi sàmm la may la wér may la wérle musal la ci balaa bi nga xam ne yàlla sotti na ko ci kaw askan wi barke sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fan wu gudd wa ànd ak wér gi yaram ba déwén incha allahu jërëjëf